mais terme boobu nga xam ni dañ ko collé à l'opposition tey ba nga xam ni fi mu nekk nii mu ngi bëgg a nekk benn benn benn modd ci opposition bi ndax yaa ngi koy dégg nan nga ko gisee. Euh, dëgg la Pape ñu ngi koy dégg ñun ñëpp mais bu amee de ak fu mu mënti amee rafetul ci opposition rafetul sax ci acteur politique fu mu mën a nekk. <laughs> Euh, te li nga xam ne ñun la war a xam mooy que ni benn souci la war a am ci Sénégal mooy intérêt yi réew mi bare na souvent dañuy wax ni. ku baax yaa ngi féete opposition ku bon yaa ngi féete ci pouvoir te affaire bi demeewul noonu et je pense que ni sénégalais yi seen environnement ak seen gis-gis toll na foo xamee ni léegi war nañoo mën a ràññee lii feebar ci réew mi ñu koy jooy ci pouvoir di ko jooy fu nekk moo nekk ci biir sénégalais bi moo mën ko fekk fu mu mën a nekk mais am solo ak lu mu mënti demee xaw ma kan moo war a defar taxawaayam mais ki nga xamee ni dafa am programme am am yéeneem pour dimbali sénégalais yi kooku war naa mën a góorgóorlu bu baax. ba kàddoom ak jëfam bañ ànd ak loolu et je pense que ni ce n'est pas bon pour le Sénégal ce n'est pas bon pour la politique te nekk na loo xamee ni mooy xajamal xelu nit ñi te mu ñu yóbbu ci désamour maanaam euh, sore bi nga xamee nit ñi weddi nañ ko lépp loo xamee ni acteur politique la. waaw man bëggoon naa aussi nga gën a précis euh, ci ci ci ci ci tontu bi nga xam ne jagleel nga ma ko parce que man jàpp naa ne bu ñu waxee lu jëm ci une opposition di leer euh, nga nekk ci opposition bi. man pour man war nga ci gën a war nga gën a mën a collé euh, war nga mën a gën a pointu maanaam ci ci ci lu mel noonu loo xam ni mënuloo ci génn parce que bu ñu nee bu ñu nee opposition te nga nekk ci man yaakaar naa ni am nga yeneen argument yoo xam ni euh, moom laa doon gën a xaar te dégguma ko. bu fekkee dem aussi sama question mën na gën leer mën na mën na mën na. waaw xam nga li ci am solo mooy tey jii mënumaa jóg ci ay anam yu leer ñu la diw mi kat nekk ci kuréel sàngam lii la wala diw mi nekk ci kuréel sàngam lii la. li ma mën a wax mooy li nga xame ni avec beaucoup de respect et de responsabilité kilifa gu toll na man ci réew mi war nga ko jël muy sa ay taxawaay li ma constaté mooy taxaaruma ba tey jii terme bi génn ma soog a koy jàpp man damaa gëm ni Sénégalais yi fu ñu mën a nekk foo dem di nga fa fekk ñu baax di nga fa fekk ñu doy waar loolu moom lu leer la man ak yow ak sénégalais yi ñuy seetaan ñoo war a am nag lucidité xel mu leer pour mën a identifier xool taxawaay yi ak déclaration yi mhm. parce que nit ñi foofu la ñuy feeñee mhm. effectivement ki nga xamee ni mhm. démb dafa la doon wax benn mbir tey jii mu wedd mbir moomu dugg ci leneen ki nga xamee ne dafa amoon benn posture mu leer naññ ni kii fii la féete nga xëy suba mu wax contraire ba kooku lu ko ci fekk ci kaw xalaat bu nit ñi xalaat ni kii wecci na wala boog changé na posture je pense que ni loolu nit ñi seen bopp ñoo koy jëng sanctionné en tant que responsable nag dafa am loo xamee ni man duma ko may sama bopp ndax du ma nangu kenn kenn dugal ma si maanaam fekk nit ca biir këram ca biir la muy xuumtoo loo xamee ni yegg seegul ci man amaguma ay éléments de justification yoo xam ne mën naa ne diw mii kat diil na ci nangam wala diw mii def na ci nangam lu dana may njort rek man dama naan rek lu jot rek. d'accord ok xam naa dinaa si ñëw bala bala bala may jàngat comportement kenn ci opposition bi ma njëkkee ko ci yow. Euh, parce que ku xam euh, Cheikh Bamba Dièye euh, xam nga ko ci ci ci vraiment ci xeex. Mm-hmm. gis nañu la vraiment ci opposition nga am taxawaay boo xam ni gis nañ ko à l'Assemblée nationale nga takk fa sa bopp ak ay chaînes gis nañ la ci place de l'indépendance ñu jël la def ci façon xeex bu ne gis nañu ko donc tey bu ñu la gisee ci comportement opposition ni kat euh, Cheikh Bamba Dièye laale na ci ndax euh, fugg combat bi nga doon demee gisatuñu nga nga nga demee lu mel noonu. déedéet munul man munumaa bokk ci loolu parce que au moins. am naa nattukaay yow doy nga nattukaay ci man say ay morom yu bare doy nañu nattukaay réew mi aussi doy nañu nattukaay parce que gis nga euh, nit ñi ñiy jaay seen bopp ak ñiy di boo leen xawee dégg rek xaw xam fa ñu jëm et je pense que ni man li ma caractérisé ki sama taxawaay mooy jamono ju nekk la mu laaj ca xeex ba moom laa koy jox ba mu mat sëkk amoon na jamono ci suñu activité politique la mu laajoon ñu war a taxaw fesal mbir pour que sénégalais yi yeewu la ma jàpp ni ci sama xalaat ak sama expertise politique moom laa waroon yeewee sénégalais yi yeewee naa leen ko boo seetee même ci activité yi mujj yi jamono bu ma ci toll situation ba ma ci toll da nga daan teg ay acte waaw non non acte yi euh, moom honorable euh, acte lañ la gënoon ràññee bu ñu dégloontee rek waaw ñëw ci acte yi acte bu nekk da nga koy situer position ba mu nekkee mhm. dinaa la génneel ay lenn taxawaay par exemple exemple yaa ngi tudd présentement en tant que député assemblée nationale def naa ne kuy sénégalais ku nekk gis nga ci lii nga xam ne mooy at bii passé dëgmal élection yi wala jiitu élection yi wala topp après élection yi su ma taxawaay ci li nga xamee ni mhm. moom laa jàpp ni mooy mhm. manque de démocratie réew mi donc euh, je pense que ni aussi amul marche boo xamee ni man duma jël ci sama wàllu bopp ñëw teewu sa biir marche ba li ma wuteeg bu njëkk ba léegi dinaa la jox te faram fàcce bi mooy li ma wuteeg taxawaay bu njëkk ba léegi bu ma ñëwee damay doon citoyen doon responsable doon kenn ci biir mbooloo ma parce que gis nga li xaw a yàq mbir mi mooy que ni souvent dañuy jàpp ni dafa am ñenn ñoo xam ne ñoo amul cëru jiite mais loolu mooy takk suuf nag aussi parce que soo bëggee nekk leader u parti bëgg booloo nit ñi bëgg yem ak ñoom position ak taxawaay ci benn xeex xam nga mënuñoo yem taxawaay yi ndax tur yi ak cër yi du bokk mais mën nañoo yem taxawaay yi ndax ku nekk da ngay ñëw ngir Sénégal. Mhm. parce que gis nga li manqué ñun solidarité moo manqué woon ci réew mi. bu njëkk da nga daan gis politique bi rek wéete combat bi waaye évolution day am. Mhm. tey jii société civile bi macha allah. Ah doomu aadama yi macha allah parce que la du vide. non non ay <laughs> Cheikh Bamba c'est parce que politique yi ñoom ñoo nekkatul ci terrain bi société civile bi activiste yi jël ko am na si wàll goo xamee ni ci li ngay wax dëgg gu wér peng la waaye am na beneen wàll goo xamee ni bu ñu toppee évolution wu société danaan processus bu normal la ndax bu daawoon di wéet ci benn wax ak ci benn taxawaay di kaas di jooy di naqarlu di métti lu jafe-jafe ak tolof tolof yi Sénégalais yi di dikkee mu dem a dem ba ci biir société civile bi mu commencé waat am ay nit ñu jóg dañuy sant yàlla parce que indee bee ko suus ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. sant yàlla jaaxaan. non non déedéet sant yàlla bi moo di. sant yàlla dem toog ci parce que gis nga xam nga la daawoon di rey nit ñi. la daawoon di dañ ko yemaloon rek ci biir kuréelu politique yi parce que tey jii defe naa ni ab politique boo xamee ne xarekat nga tigi tigi tigi da nga war a kontaan bég ci li nga xamee ni société civile maanaam ay nit yoo xamee ne ay témoins la ñu ay nit yoo xamee ni au moins ak lu mu mënti demee esprit partisan nekkul ci ñoom bu ñu teewee ci mbir yi ñaar la ñuy indi benn mooy lu contrôle citoyen ñaareel bi wanee ne aussi tey jii pluralité yu acteurs yi parce que li am solo ak ci politique beeg ci ku mu mënti doon mooy ñu jóg ngir intérêt yi Sénégal te alhamdulilah rabbi alamin autant ci de combat politique bi. dafa am ay évolution autant mooy jouer les second rôle. non non non non c'est pas. Ah, non non euh, Cheikh Bamba. Pape xam nga gis nga tey li nga ma naa ko d'accord mais aussi nga d'accord li ma wax. non xam nga lu tax mënuma d'accord ni du second du second rôle la déedéet dama jàpp ni xam nga tey jii. si on est 16 ou de Sénégalais. Mm-hmm. ñu ne courant bi am na problème. yow mi nga xamee ne da di acteur politique nga jóg bàyyi sa itte bàyyi sa yëpp teew ci marché yi moo xam fu ñu ko mënti defee ca biir réew ma la lay jox crédibilité dëgg dëgg dëgg da seet analyser mbir mi. parce que lañ daawoon di yàqe ak teel a xelu nit ñi maanaam génnuñu seeni doomu jàmbur yi la ñuy génne dañ daan daawoon di tuumaal ci ay détails yoo xam ne teguwul fenn. boo demee ba nga xamee ne sa ay mooy ayu askan wi sa jooy mooy jooyu askan wi naka kanam yi gën a bare naka taxawaay yi gën a bare li am solo mooy li ñuy jooy bu sottee ñëppay jariñu te plus ñu am une masse critique de sénégalais parce que ak politique ak syndicat wu politique yi lu ñu bare bare pap mënuñoo weesu dix mille acteurs ci seize millions. dañoo néew trop pour mën a doon ñi nga xamee ni ñooy taxawaay te nag gis nga taxawaay boobu mënul solde su ma waru gar te foofu laa d'accord yow munul empêcher ku mel na man ak ku taxaw sama taxaw nga war a takk takkaat seen digg góorgóorlu ndax lan doon jooy démb ba tey mi ngi ci réew mi. te bu ñu ko xeexulee dimbali am xel am taxawaay mën a ràññee bu ñu ko defulee man xaw ma kon lan mooy suñu intérêt taxawaay politique. waaw waaw mais Cheikh gisee question boobu mënul woon ñàkk vraiment ko parce que li nga wax moo ci nekk dañu nekk témoin ci sa combat nekk témoin ci sa taxawaay muy ci plateau muy ci terrain bi moom ay actes yu am solo yoo doon posé danga nga nekkoon député la l'Assemblée nationale jël sa bandeau takk ko taxaw chaîne sa bopp ñëpp di ko gis mais actes yooyu ko gisatul mais il faut que ñu laaj lu xew. dëgg la normal na mën naa la expliquer. sax yeneen ni actes yoo xam ne yëpp combat la mën naa la mën naa la laaj mën naa la indil benn mbir ndax àddina day évoluer combat yi aussi di évoluer mais passe-passe bi moo dul changer combat yi ni muy évoluer mooy situation bu nekk bu ngeen nekkee ci benn combat politique bu combat boobu dañee acteurs yu bees yi ñëw non seulement ñu baax ña ñu bon ñi dañuy jàng ci feem yooyu donc yow mi nga xamee ne acteur politique nga da war a dox ànd ak jamono dox ànd ak jamono moo di. lan nga bëgg wax chaque acteur bu bees. Ah, non non yow déedéet déedéet dama ne parce que boo nee acteur bu bees day am acteur bu màgget. déedéet acteur bu bees. waaw moo di ki nga xamee ne tey jii tey jii la soogay tàmbali ci biir action bi nekk ci dama ne bu jamono soppi ko foog nga soppi sa doxalin.